de dafa ba loolu siw troisièmement dañu naan français tey muy la cest dire <laughs> la dame se contredit plusieurs reprises loolu kese créer doute donc loolu kese mën a C'est article ñaata cest dire principe de droit ok en droit le profite à l'accusé. Euh, comme euh, Sitor Nour doute lañ ko libéré par rapport ak wàllu viol bi. xam nga Sitor Nour tey dafa am certificat médical pour présenter. wu. ok bu ne carrément. Hmm. les faits sont là sont avérés leneen matériel. ok mais Sitor Nour. Hmm. heure bii nii bu fekkee bu fekkee libre ak occupation dañ ko libéré mu dem yoonam te pourtant Ousmane Sonko ba léegi nii ñu ngi koy toog tampi tampi di ko agressé. te fële certificat médical bi. leer na wane na carrément les faits te pourtant moom dañ ko libéré mu dem yoonam te feulé certificat médical bi. néna amul viol contre dina les faits. mais ko pour pour balé ñuko top manam Ousmane Sonko aujourd'hui est la personne qui a subi plus d'injustice dans ce pays là c'est tous les plans mom lañu téré mom lañ nangu passeportam am ne ko yaa contre compte judiciaire voyager doo dem hmm pendant combien d'années au même moment am ku nek contre su compte judiciaire mais ku nga dafa ànd ak gi. ñu ko bàyyi mu libéré tout tranquillement hmm. mooy journaliste boobu noonu euh, euh, ki bindoon livre bi fii suñu journaliste bi Pape kii tudd sax Pape Ndiaye non du Pape Ndiaye journaliste bu bindoon livre bi fii nii nii du ba naan moo Ousmane Sonko jàpp gis naa Ousmane Sonko fee si corniche bi Cheikh Yérim Seck Cheikh Yérim Seck hmm. comme mu si contrôle ñaari sax hmm. te pourtant moom dafa vakki librement di dem voyage am dana fi Qatar ñëwaat deuxième fois mu yëg moo Ousmane. kii Ousmane Sonko aussi am na privilège non nous quand même là loolu la Sénégal on est à deux types de Sénégalais mais ngi sous contrôle judiciaire. mais malgré ça yi fi béy mi ngi en instruction. peut-être ce n'est qu'un Sénégal lambda bi la tey jii euh, euh, euh la ñu koy jélé pour indi ko si si atté bi. kon cela veut dire que Sénégal fi légue bu dee Ousmane Sonko mané ne contrôle judiciaire amul droit génn mais bu dee kenn ma ne contrôle judiciaire mun naa le loolu hmm. problème bi. Hmm. ñoom ñaar ñoo nekk contrôle judiciaire. Hmm. Ousmane Sonko ñi meul génn mënul génn mais kii muy guen librement deuxième des choses affaire Bougazelli muy fi ay faux billets fan la mujjee. ok ay trafic de passeport fan la mujjee. il y a pas mal d'infractions infractions. Hmm. wér kàmmaa tey maanaam c' est visible. xam nga ñi la war a lan la ñu war def. moy hmm. dossier bi dañ ko évacuer sans di ko du dugal si poubelle. Hmm? deuxième des choses que les gens essaient de jouer la carte de l' apaisement ñu dem vers un dialogue qui est sincère.

comme tout le monde. alors maître Bam Cissé. Mhm. avec maître Clédor Ly nee une suñu Ousmane Sonko teew si de l'armée comme dit procès alors nous euh, ne jot nos convocation dig dem mu def na benn démenti dem sax bay une convocation que nous Ousmane Sonko réellement attesté à Zigan à mhm. justement donc euh, est ce que tey dit euh, le refus d'Ousmane Ousmane Sonko à tant que juriste mhm. lu peut être de peut-être préjudice. non il n'y a pas de refus xam d'abord convocation man suis un avocat ok avocat bi nee na moom Sonko n'a pas reçu de mm, mm, convocation. Mm. amatee tamit minute, ku lay ku lay défendre. ñun nous sommes des partisans de Pastef Ousmane Sonko. ok te avocat bi tay wax dara. ñun loolu la ñuy gëm jusqu'à la preuve contraire. néewuñu nag gëmuñu justice wala gëmuñu état wala ñoo institution wala nos forces de on le dit pas mais ñun suñu avocat avocat Ousmane Sonko lu mu wax ñun d'abord loolu moo loolu moo ñu gën gën a moom la moom lañ gën a jàpp d'abord. par rapport ak yéen ñii comprendre nga avocat bi moo taxawatee ne moom Ousmane Sonko jotul convocation. Hmm. donc en tout cas preuve contraire Ousmane Sonko muna naa toog kiram fe jàpp jàmburam du ñëw. ok comprendre nga. ok benen affaire bi lu ñu bëgg def col Ziguinchor sorfé lolu goma du goma goma néew ni duma nek dé mais mais soit criminel même so ñew sax ñu né feeb da nga war a def signature est-ce que yow mi nekk juriste peut-être lolu da nga koy attesté wala. non affaire bi c'est-à-dire fi mu nekk xam Sonko bu ñu wax fi bu ñu wax fi mbirum Coutumance Zuma Coutumance xam nga sànq maa la koy wax les conditions pour que Zuma par Coutumance ne sont pas réelles xam nga lan mooy tota, fan la fan la ñu amee Zuma par Coutumance. ok d' abord foog d' abord les coupables. wala les mm. témoins les témoins mm. sax. Mm. juge bi àtte ne témoins yi nekkoon si dëgg. foog ñu condamné d' abord témoins yi sax balaa ñu naan bu ñu condamné principe kii la source principale ñu ne waa viol am na ñu connaître la source principale avec tous les éléments de preuve ba ñu ko nee téeméer balaa ñu taw affaire contumace. alors ñu ne contumace peut-être euh, ñu si ëpp jàpp na ni mooy absence Ousmane Sonko quel que soit peut-être ak ak euh, verdict pour lépp mu mën a mel rek par mm. contumace mm. même suñ ko joxee dëgg sax par contumace donc nga parce que donc nga ko absence exactement mm. est-ce que tamit àttee par contumace juste bi euh, délibération bi tey mën nañu ko jot maanaam li nga xam ne que modifié parce que dégg naa ñu ne il faut fii ak 10 jours entre temps Ousmane Sonko su des seen kii day wuyu ci wàllum yoon ak wàllum peut-être ñu daal di tegg li nga xam ne que mooy contumace bi est-ce que bis buñu atté par contumance bis boobu la ñuy daal euh, li nga xamné ne mu di génnee verdict bi. non ñoom mun nañoo mun nañu àtte tey. génne verdict bi tey génne seen seen verdict parce que bu verdict moy damay. léegi 10 jours yi nag fii 10 jours yi ñuy wax nak mais loolu soog mun def appel wala mu ñëw mom ñu déplacé wu ñëw fi def appel affaire bi. mais absence bu mu absenté ni ñu ne mënul def appel. non c'est-à-dire gis nga en matière criminelle. ok dans tout l'état de procédure. ok la personne qui a été condamnée. Hmm. procédure le juge fu mu nekk nii les avocats de d'Ousmane Sonko, aussi bien presque que la majorité des Sénégalais, hmm. la procédure a, connaît des vices. On n'a pas respecté toute la procédure. On n'a pas respecté les droits de la défense. On n'a pas respecté même les avocats de Ousmane hmm. Sonko. Hmm. Donc, quoi que l'on soit, le verdict, dans la, dans la majorité des Sénégalais, il y a l'une diap moi. Il y a quoi. Verdict c'est moi, terrorisme Sonko est candidat. on a fait bien l'ol. Terrorisme Sonko n'est candidat à 2024. Parce que Sonko est candidat en 2024 Bonne organisation élection midi élection jeex na Sonko Sonko gagné na midi Sonko gagné élection yi dafa lees bopp nit ñi mais y a des réalités il y a des y a des réalités. non midi élection yi euh, euh, en 2024. Ousmane ta àndul coalition. parti politique premier tour. yow xam va fii 2024. gars nous lu ñu coow fii nii yëpp dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy nekk di sim quoi dañuy feemu. dañuy calli calli nii ma dañ ko ne day dougal génnee xool. Hmm. mais gars yi xamantan ne bu baax. Hmm. Sonko candidat deux mille vingt quatre. gis nga li nga gis fii di heure bi nii di tëb di tëb di daan di yóbbu fii nii rek ñoom jàpp ni Ousmane Sonko ay out du bokk moo tax auditeurs yi mais bu leen mooy ba leer na ni maanaam deux mille vingt quatre Sonko bi candidat ñoom ñëpp doo leen dégg parce que xam nañ dëll bi yemul. élection avec Ousmane Sonko en deux mille vingt quatre midi laa wax midi bi jeex na fii kan mooy candidat à part Sonko kan. nga ne ma la personne fiable kii nous yofini je Dakar fi la mais Sonko c'est un leader national international yàlla ko def. voilà euh, lan may pesé wu si moom. bis bu mee dëggam risques yi xaar par rapport ak wàllum viol mm-hmm. parce que neneen euh, gàtt gàtt peine bi dix ans la. Euh, da nga criminaliser exactement alors risque yi ak lan mooy xaar Ousmane Sonko par rapport ak boobu de si toutefois mu daal di li nga xam peut-être coupable si boobu de Mir. xam man loolu laa gëm quoi man. góob ni gars yi seen objectif maanaam seen seen bébét mooy. Hmm. jàpp Ousmane Sonko tëj ko tëj ko prison. Hmm. xam man laa jàpp man laa gëm. ok man dañ koy condamné. pour mu bañ a bokk pour mu bañ a bokk élection. te jàpp naa tamit sénégalais yu bëri. Hmm. fi ñu loolu lañ gëm loolu lañ jàpp. mais nag fu mu nekk nii gars yi ñoo la gën a xam. regard de de l'évolution des faits. ñoo la gën a xam ni fii y a pas matière à juger parce que le dossier est vide. Okay. Il n'y a rien à juger, il n'y a rien à reprocher pour les Sonko. Hmm. L'un rek la ñuy mën a qu'est-ce Sonko lenn qu'est-ce kese kese. Hmm. Hmm. Moi, le fait que ben am projet fiable pour le Sénégal pour le développement du Sénégal que c'est Moi, Sonko dafa que ben jeune bu liggéey pendant quinze ans impôt domaine. génne ne man du ma nangu ESUS présenté wu am benn projet pour le Sénégal kooku la ñuy loolu la loolu la mën a reprocher. mais ay viol yi man sont des choses pour juste su accessoire pour les mouvements éliminés. mais attends, mais attends, acteur de droit. Euh, taï, nga gis ce sa leader taï n'est des désobéir à ak le yoonal exactement alors euh, désobéissance ou non, est-ce que jàppoo ne war na mën a jur ay euh, dégâts collatéraux yi n'a xam ne tam kenn mënu koo natt. Hmm. mais déjà <laughs> le fait que ben affaire pour ndaw affaire de supposé viol. Hmm. ñaata la la créé fait ay dégâts collatéraux ak ay victimes par ricochet affaire ay ce qu'est-ce qu'est-ce parce que désobéir. a mais aussi désobéir. c'est-à-dire l'histoire d'accord affaire problème Il hmm. a créé pas mal de victimes par ricochet. ñi Newton affaire ay de victimes tax na 14 a hmm. affaire ay il des fils de la ok policiers. Hmm. ay nit victimes. Il ay place ñu yàq ay économie bu bu bu c'est-à-dire on a perdu des milliards ci affaire affaire ben affaire bu ndaw ay fu après c'est pas vrai Taï, en justice en droit man quoi. Hmm. on doit respecter les institutions on doit respecter le droit on doit respecter l'autorité mais cela on ne doit pas dire, on ne doit pas dire, on signifie on doit obéir aux lois qui sont manifestement injustes ou aux décisions qui sont manifestement illégales. Mais il y a toujours des magistrats qui sont euh, indépendants mais magistrats par rapport à ce au Sénégal. pense que aussi la reconnaît. Sénégal on a les meilleurs magistrats en Afrique. Hmm. Sénégal hmm. on a les meilleurs textes législatifs en hmm. Afrique hmm. on a les bonnes les meilleurs professeurs de droit en Afrique au Sénégal ils ne sont pas ça la majeure partie ils font correctement et dignement leur travail sans reproche mais il y a une minorité ce côté là ils sont là à la sorte de l'exécutif ñoom luñ la Moi, intéressé de promotion lan ma intéressé mooy bi def def li le président bi laaj. affectation yi. voilà mais <laughs> la majeure partie. sont des magistrats des procureurs des juges des hommes de tenue